en si taxawaay bi nga xamante ne nii moom ngeen jël seen kóolute seen confiance bàyyi ñu liggéey bi. boobu ba léegi rek ñu ngi dajeeg lenn si muxaddam yi gannaaw bu kenn ku nekk si ñoom woowee sa njaboot ngir ñëw teertu suñu kilifa suñu lépp xaadimul ummati Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass waaye di ndokkeel baax. imaam al akbar imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé waxtu wi toll nii moom it mu ngi si mobilisation bu am doole ngir xaar ko fee si buntu Kabatoki di ziar bu baax suñu bàyyi Cheikh Mouhamadul Makki Cheikh Ibrahim Niass Euh, sëriñ bi Cheikh Aziz tey ñu fekk la fii tey en direct Kossy TV euh, taalibe yi ñëw njaboot gi ñëw ban kàddu rek moom nga am pour joxewaat ko appel si ngan gu mag gi nga xamante ne tey jii yàlla jël ne ko tey askanu Dakar waaye rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a yare fii si yàlla waaye di leen ndokkeel tamit si buntu Cheikh Mouhamadul Mahi Aliou Cissé di ziare suñu soppe suñu xarit Baye Abiyas foofu si marché Médina jërëjëf sëriñ bi ñu de contentement lañ am ci yëf yi comme ni ko ñëpp amee waaye tamit dañoo jëlaat dars bu bees mooy li Baye waxoon ne lay sa siriya aqiran sama mboot jërmelul jëlaat darsu bu bees si ne ba tey ndigal rek mooy doole ndigal rek mooy def différence tey lu ONU mënut Union africaine mënuñ ko ba ci sunu njiitu réew yi ilif ñu biir Sénégal mënuñ ko dégg nga kenn ci doomi réew mi di sëriñ dem def ko dëgg-dëgg loolu dars jëlaat nañ ko dars bi ñi ko war a ñi ko njëkk a jël mooy politiciens yi liñ mënut sëriñ si ñuy xeeb def nañ différence kon tey li waroon président de la république tey jii nii fi la jóge waaye li ko waroon tey mooy mu xaar Papa Mahi fii ci aéroport bi takkal ko médaille dégg nga ordre national du mérite ba pare saafanteeg moom tàllal ko loxo mu ñaanal ko yàlla doog a tukki tukkeem waaye amaan na président ku respecté Medina Baye la te bëgg nañ mu rectifier yëf yi maanaam bu delsee na yëg dégg nga liggéey bi nga xamante ne sëriñ bi moom la ko liggéeyal ndax président Macky bu fekkee ne moom ci boppam moom moo jiite Union africaine bi am na ndombal tànk bu kawee buñ ko ci jox dégg nga euh, Cheikh Mouhamadul Mahi dem liggéeyal ko liggéey bu rëy bii ci biir Afrique nga xamante mom moom la ko liggéeyal kon dëgg-dëgg moom président war naa bàyyi xel ci sëriñ si waaye tamit bàyyi xel euh, doomi Sénégalais nga nañ ko place boo xamante ne kum fa yónni woon doo ko def waaye yàlla na ko may ak bët bu yaatu ba mu xam dégg nga islaamu suufi ci Sénégal ban njëriñ la am beneen bi ma ndaw ñi koy wax ndaw ñi nañ ne am ndigal dégg nga ak am kilifa mooy def différence tey li yóbbu Papa Mahi tey li yóbbu Papa Mahi tey résultat bi mu am si rugam àndaloon nga bàyyi doon àndal moo ànd ak moom ndimbal ga bàyyi ba doon ànd ak baay moo ànd ak moom baay lan moo ko dimbali ci toj gi toj àdduna bi juróomi mbir rek la woon mooy imaanu billahi ma'rifatun yaqiniya mahabbatu rasulullahi al iznu wal wal wal ixlaas bàyyi li ko yëkkati woon mooy gëm yàlla gu wér xam yàlla gu wér bëgg yonent yàlla Muhammad ndigal ak sellal lam doon def moo tax nag tukki Papa Mahi tey du tukki protocole du tukki protocole parce que yónni wuñu nit ne ko sëriñ baa ngi ñëw mu ñu dem def protocole ba ti déedéet ndigal a ko yóbbu مو جار فبايم دوم جار فن لون علم خالقي بأن سفري ما فيه حظ من حظوظ البصرية ألقيت كل غرض أن دبري وجئت أسياخا سفو أن كدري كون لي يكتي وون باي يين غوغو مو يكتي بابا ماهي موتاخ ريزلتا بي مو أم تاي دما بوغو نين ني خامني باي نيس موي سوليوشن بي ndax دان nako def way ba tay cheikh ibrahim nous moy solution bi ndax guerre biafara bi nga xamantene 15000 مور la won bañu jaxlé Nigeria, ginnaw bi Nigeria, gëjee Nigeria ñu ne ton guerre bi tay Alaaji Ibrahim Niass rek lañ ci xalaat mu dimbali mom lañ sakku won mu delsi si dégg nga gerba guerre ba fay ñi tamit biñ jaxlé autant mënu ci dara oni mënu ci dara Macky Sall mi nga xamantene moy sunu président ba paré jité ndombol tank wu reuy Union africaine di li di liggéeyam mënu ci dara domi rewum genn juk yónniwu ko mu dem def résultat bu reuy bi buñ ko fulaalul fi Senegal tamit fulal gi ñuy fulal Cheikh Ibrahima Niass bitim réew mu ngi leen di jëriñ kon des na Sénégal mu bàyyi waat xel kan mooy Cheikh Ibrahima ci islamu suufi kan mooy Cheikh Ibrahim Niass ci tariqa tijaniya kan mooy Cheikh Ibrahim Niass ci islam bi ñuy dund ak ci monde bi stabilité bi am ci aduna bi ak ci Afrique gi mënul am sans Cheikh Ibrahima Niass loolu dañ koy wax ci luñ motax man nak limay wax bës bu nek moy ndaw ñi nañ delluwaat ci kilifteef ndax kilifteef moo yóbbu woon sénégalais yi doon ay nit moo yóbbu woon sénégalais yi fu tàkk ñu dem wëllu ji mu demee ba réew bu ji tàkk nañu xalaat lan moo ko taal mooy lan ñàkk kilifa kon nañu bàyyiwaat xel ñu ñëpp ñu bootuwaat ci ginnaaw sëriñ si bu boobaa sëriñ si si boppam dañ nañu teg ci loxo dégg nga yonent yàlla Muhammad la fi doon am di am ba tey moo tax ma ne ndaw ñi laa bëgg tey ñoom ñëpp nañ fàttaliku nañ xamaat ne islaamu suuf yi tey moo fi ne ci àdduna bi ndax àdduna bi yëpp dañu woon ne islaam mooy indi jàmm ndax avant la guerre du croix islam bi mu dirigé adduna bi jàmm rek am ci àdduna bi bi islam perte àdduna bi ci la banditisme ak ger yu rëy yi amaat ci àdduna bi ñëpp yaakaar ne bu islaam ñëwaatee àdduna bi dellu fam nekkaatoon am benn modèle islaam islam ñëw modèle islam boobu ërtal nit ñi teg bombu rey ay nit ñu ne waa lii lan la ñu ne islam balab tey islaamu suufi fël la mooy islaamu am sëriñ mooy islaamu bëgg yonent yàlla muhammad mooy islaamu am kilifa islaam boobu produit moom moo def résultat tey muy cheikh Mouhamadul Amin de muy cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass benn la résultat ba li mu def résultat lu islaamu suufi la kon adduna bi xamaat nañu ne islaamu suufi mooy islaamu yonent yàlla muhammad mooy islaamu birit bi kon tey moom la papa Mahi yaroo. ci lañ ko yar moo ko inspiré moo tax mu def résultat bi tey kon bu ñu si kenn njëkk ñun sénégalais yi maa ngi wax président Macky Sall ne ko na bàyyi xel sëriñ si fi Sénégal lu tax ndax stabilité bi am ci réew mi milliards yi dugg ci réew mi yàlla ak sëriñ ci lu tax bailleurs yi seeni milliards duñ ko dugal ci réew mu amul jàmm duñ ko dugal ci réew mu amul yar duñ ko dugal ci réew mu amul stabilité te stabilité sénégalais yi tey université dafa ko de yaru sëriñ si la sëriñ si ñooy yar nit ñi ñu doon ay muñkat muñkat nag dama dégg ci télé bi ñu naan sëriñ yi ay tapet lañ xamuñ li xew moo tax ñu leen war a conscientiser muñkat da koy jiiñ tapet muñkat da nga koy jiñ innocent fekk day muñ moo la gën a xam li xew mais day muñ moo la ëpp fit fop waaye limi muy muñ a tax nga foog ne dafa ragal moo tax mu des président war naa delluwaat xalaataat seetluwaat ku mel papa maahi résultat bi mu def mu xam ne lii ndamam la mu fulaal dégg nga chef religieux yi jox leen gëdd ndax ñu koy defaral ci biir dëkkam ba won ko résultat fu dëkkam kon Macky Sall war naa ak président bu fi mëseen ñëwati war baye xel islam soufi ak serigne si de nga lan la len di defalal ñinga nga ñu ci terrain bi ne ci souf di yar sénégalais yi di len dalal ba président am jamam du mëna a wax ak sénégalais yi deug dëgg war naa fullaal rek la doon lancer di wax ci TV ah. mm Mm-hmm. waaw alhamdulillah mu xadam mi nekkoo benn loolu mooy jox moo ñuy jox résultat bu gaaw ndax lan Cheikh Ibrahima Niass joxoon nañu darsu bi dañoo laaj bàyyi lan mooy euh, euh, euh, lan mooy solution bi nga xamante ne moom la wootekat yi nga leen di jox ci musiba yi leen di gaar mu ne leen man bugguma kuy jàmbat bugguma kuy lim ay problème li war wootekat bi mooy lépp lu mu am na ko dépassé ci ooteem yàlla dana eno sababu réussitam muqaddam yi problème yu bëri yi ñuy am du seen échec ki am jàmm jubóog ñëpp du réussitam ñun li ñu li ñu soxla mooy kenn ku nekk doole jim am na ko def ci oote bi yàlla jox ko résultat Baye wax na loolu deuxième bi nag mu ne jàmmoo gi Baye wax na ko na ko ma baynakum wa bayna rabbakum bàyyi bu buñ demee ba yewenanteel seen diggante yowen seen digganteeg seen borom def nañ teraanga jox nañ Baye teraanga gën a kawe te Baye ñun tey sëriñ bi la la li ñu war a def mooy muqaddam bu nekk mu gis ne moromi muqaddamam dégg nga dokit la ci jëmmi Maulana Cheikh Ibrahima Niass bu ko muqaddam bi defee taalibe yëpp ay maase te jàmmoo gi xam nga kañ lañ koy def mu gaaw bu benn muqaddam tantatee ñu gëstu gis muqaddam yëpp ci tant buñ ko defee at mi jeex déwén kenn dootut wax ta eh, ñàkk a juboo taalibe bàyyi ak ñàkk defandoo loolu nag muqaddam yi laa koy ñaan ku ci amati jotaay na nga invité muqaddam yëpp te maa ngi ñaan muqaddam yi kuñ ci invité da nga ànd ak say taalibe waaye demal toog ci tant bi bu ñu pratiqué woo loolu un an wallaay dinañ gis doole guñ mësut a gis fii ci Sénégal loolu rek laa yaakaar ne su su mooy jubale mu xal am na ah, jote wuñ sax waaye ñàkk jot gi ñàkk am jot gi moo tax waaye nañ tëbb ci sunuy jot ñun ñëpp ñu joxandoo ko Cheikh Ibrahima Niass bu boobaa danañ def résultat bu gaaw waaw maa ngi sant Kossy TV di wax ne ñun ñëpp koy seetaan seen produit yëpp la ñuy seetaan fu ñu leen dégg ñu ngi leen di seetaan te te te te organe bu crédible la Kossy TV mënoo xam ñan ñoo ko moom faydu rek lay liggéeyal ci ñëpp ngeen di teew ci yar ak wonal ko li nga xamante ne dëgg-dëgg sedd na xolam loolu ñu ngi xam ne kon yéen seen seen seen seen seen objectif mooy na fay du bàyyi bii leer ba ñëpp gis ko l'humanité nag euh, média nag l'humanité lay jàngale te wallahi média yi bu ci bàyyi sës bu ci bàyyi fesee nit ñi doon nit bëri na ku oo média te amul lu muy joxe taalibe bàyyi bu ñu oowee média li ñu yor dafa ëpp sax média kon nag ñun luñ ci def rek xeeb nañ ko ñu ngi ñaanal Kossy TV ci làmmeñu dégg nga taalibe buy ñaanal sëriñam dégg nga di ñaan résultat yu ëpp seen njot yàlla ngeen koy may ñu ngi ziyaara mbokku taalibe yi si ñëpp yëpp di leen wax ne waxtu wu jot nag luñ gis si yéen rek ñu ngi koy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf